fàttalante ak sunu mbokki jullit yépp lenn ci lu aju ci weer wi nga xam ne ci lañu nekk muy xew-xew bu am solo bu ci xewoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bala ñu cee agsi ñu bokk jaalewaat suñu mbokki jullit yépp tiis wi nga xam ne junjoon nañu ko fi ci ayu bis bi weesu ñu bari ca ñooña tey ji lañ leen jébbal seen boroom yal na leen yàlla yërëm muy xew-xew boo xam ne nag ñi nga xam ne seeni xol seen pas-pas ci diine mi ngi nox noxi jaaxle nañ ci tekkaaral gi ci àdduna bépp ne tekk nga xam ne daa mel ne dara xewut moo ne bokk yi day ruuxu jullit fa yàlla moo gën a foor fuuf waaye day bu leneen xewa xewoon da dégg ku nekk ñaawlu ko waaye ginnaaw ab jullit moom moo moom lañ rey moom tekkiwut dara waaye nag loolu dafa bokk ci li yàlla di nattoo jaamam ndax am na ay aayaat jiital naa ko léegi bu lu mel lu nu mel xewee moo taxoon suñu boroom di ko wax ak jullit yi nee na yéen daal lu mën a xew fab leen tabaaraka def ko wéttal def ko wéeruwaay tey jaamu yàlla boole kook muñ ndax yàllakat bu amee ñaari kuréel kii di ñaxtu kii di muñ bu ñëwee fa koy gënal mooy fa muñkat ya féete yaa ayuha alladina amanu istainu bi sabri wassalaa inna li muy metti metti ñu naan dañ leen a rey yàlla tontu woon na bu yàgg ne bu leen yëkkati seen kàddu mukk naan diw ñoom dañ leen a rey bu fekkee ay jullit lañ liñ xam ci kuñ rey mooy koo xam ne dañ ko def nañ def gaaya fekk ku muy julli ñenn ñi dañ doon julli ñenn ñi di teewlu ab xutba ñu boole leen faagaagal nee na buñ demee ba denc leen ni ñu leen denc bisu tey bii bu leen wax mukk ne buñ ne la ana ñu nga ne leen buñ ne ana gaay yi nga ne ñooñu de ñi ngi leen di lim ci am waat yi léegi ñi nga xam ne faatu nañ ba suul nañ leen yàlla ne déedéet bu leen waxe noonu ngay dund feneen dund gu gën fuuf donte yëgu leen ko bokk yi saabu jant bi sooyee fii ba kenn gisatu ko ba làmp yi tàkk kuy dem dangay ngay wutub làmp am na ñeneen ñoo xam ne ñoom ña koy soog a gatandu mu tàmbalee leer ci ñoom wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwaatun bal ahyaa walakin la tash'urun moo tax mu ne nag su loolu amee bàyyi leen xel ci ne nattub suñu boroom ci ab jullit la koy teg nee na léeg-léeg mu nattuñu ay noon gaw ñu mu ñu gaawee ci àdduna bi fépp fi mu ne nii nga xam ne jullit bu dund ak bu dee la ñamale te buñ ko mënee rey te kenn du ko yëg ñu rey ko ndànk benn ñu rey ko ci pas-pasam di ko nguróoñ ndànk-ndànk ba ba dutu gëm dara wala ñu def na waajee def nga xam ne moom daa ëppal bokk yi kooku de réew mi ñu wax ne fa la dëkk ci réew yu mag yi la yi ñuy lim réew yu mag yi ca la bokk réew yi gën a mag ci àddina bi ëpp ci doole yi koom-koom ca la bokk waaye nag bokk yi dafa am baat yu xew ñu koy wax modernité maanaam lu xew fii rek war naa yaatu ba nekk fépp modernité nag développement moo koy jiitu développement nag dara jiituwu ca ab yar ak mën a muñal ki ngay taseel guddeeg bëccëg ak loo ko bañ-bañ nga muñ mañal gi ko bañ ba ba du ko xam waaye ndekete yoo kuy yéeg ba àgg ca kaw bu bëggee wéy di dox fi mu mujjaat rek mooy wàññi ko waat wàcc ku dëkk ci réew mu toll noonu ñu di ko lim ci juróom-ñaar yi ëpp alal ci àdduna bi génn fukki réew yi daal fukki réew yi ëpp daal ci la bokk waaw alal dañ doon jël di ko di ko jàngale xanaa dañ ko bëlewutoon ak akub yar xanaa njàng ma ak nit da caa amul xanaa njàng ma da caa yow li nga sañ a def fu mu yem fa la keneen tàmbale ab sañ-sañ fa la tàmbalee fu sa sañ-sañ ñam fa la keneen tàmbalee xanaa jàngaluñ ko xanaa waaye ginnaaw def na lam def yàlla àtte na ko ba noppi wa man yaqtul muminan mutaamidan fa jazaauhu jahannamu xaalidan fiha wa gadiba allahu alayhi wa laanahu wa aada lahu azaban azima ko yàlla àtte na ko ba noppi nee na doonte yi moom léegi tey ñu bàyyi ko mu dem yoonam ndax dañ koy daal wutal ay àndaale naan antakum xelam mu jeex waaye yàlla nee na ngi koy xaar ak payam waajal na ko ba àggal mooy jahannam bokk yi jahannam sawaro yi bari dañ koy muslu moom ba noppi xaalidan fiiha bu fa duggee duutu fa génn benn ñaareel ba xadiba allahu yàlla mere na ko ñetteel ba laanahu yërmande moom jëru mu di ko fenn ndax du ko gis ba ca topp aadda lahu azaban azima waajalal na ko mbugal mbugalum suñu borom moom waajal képp doy na waaye yàlla jëfandikoo ca azima kon boog nañ xam ne loolu nattu bi ñu yàlla di nattu ci la bokk noon yu ñu gaw léeg-léeg it mu nattu ay jullit réewi jullit teg leen xiif bu metti te kenn du leen faale dañ leen di bàyyi ñuy dee par ndànk-ndànk ndax dañu naan ndokk leen ñu dee ba jeex bokk yi nag nit ki mën nga ko rey waaye pas-pas kenn mënu ko rey ñaata jàmbaar ñoo daanu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ defee ne àdduna tukki na ñaata jullit sa judd war ginnaaw bi fan yi fan yi waa ji defee lii rek lim bi tuub dugg ci lislaam kenn xamu nu mu kon ñoom liñ doon tàggee benn buur bu ma sa nekk Sénégal naan bi muy dund da doon rey bi mu faatoo mu rey ñoom seen dund amoon na njariñ ñu ngi doon jaamu yàlla ba ci waarawa lañ daanoo waaye bañ leen di laata denc di leen jébbal seen boroom sunu boroom ñépp nu bokk ko euh, mbooloo dugaat na ci seen sababu faatu googu lu bari dugaat ci lislaam ndax dalee na naqari la dugaloon Seydina Hamza ak Seydina Omar ci lislaam del dekkiwaat na fan yi ci ak tënk Seydina Hamza daa fekk ñuy lor jullit yi mu ñëw ñu ne Hamza day ngi nii radiyallahu anhu mu ne lu xew ñu ne ko sa doomi mbokk mi daal moo fi nekk di wax lii di wax laa ba wax ca baat yu ñàng ak mbokk dugg ko li pas-pas ba doon wuute booba lépp téewut mbokk gi moom mi ngi doon dox mu daal di wëlbatiku rek bitti loxo kooka mu ne fàtt fi suuf na nemm ñu ne deena mu xam lu yàgg door a ximmaliku mu ne su dee loolu la sax man for naa bokk ci diine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Omar it ni mu demee ñëpp ko dégg ñoom seen dugg ci lislaam soreewul ay fan yu néew la génnut ay bis daal mbokkam mu jigéen moo yor alxuraan di ko jàng mu déglu ko déglu ko mu yéeme lool wuuteeg waxi nit ñi lool mu ne ko ma seet mu ne ko laa yamassuhu illa al mutahharuun la muy doon doon jigéen ak li Seydina Omar di bari kàttan lépp fitu pas-pas wi na ci moom faaliwul kenn laa yamassuhu illa al-mutahharun mu ne ko waru ko laal ndax lii ak laa moom it mu am nu mu def ak moom ndax ni mu toll ak ni ki koy wax toll mu ne ko xanaa dangaa jeexal di dóor jigéen joo xam ne yorut genn gànnaay ak su doole ju bari ji mu ne tekk ba yàgg mu ne nañ dem nga wan ma ki koy wax kum doon ñu yóbbu ko ci sallallahu alayhi wa mu ne bu dee loolu la ashhadu annaka rasulullah kon bokk xat-xat yi ñuy dal jàmm la ndax bokk yi ndox soo ko bëggee téye mu bari soo bëggee mu taafu fenn rek da ngay da ngay fexe ba du dem da ngay baara yoonoo mi jaar rek yal na leen yàlla yërëm euh, nattu boobu nag yàlla nañu yàlla dimbali bañ mën koo muñ rek mooy dana leen gaw ak i noon akub xiif ak alal ju yàqu ñu daal ci potoxlu waale massa waale ñi nga xam ne it fan yii njommite def leen a topp ba seeni alal yu bari yàqu waaye ki na yi la bokk rek léegi-léegi mu indi jàngoro nit ñi dem noonu rek te ñu xam jàngoro ji nu mu tudd ak lu ko waral léegi-léegi ñu bay ba yaakaar ko mu naax saay waaye nee na su boobaa nag neel ñu dugg ci néegu muñ sant leen yàlla te xam na jàmm dong ngeen di am wala nabluwannakum bi cheyin min alxawfi waljuuci wa naqsi min alamwaali walanfusi walthamarat wa bashir alsaabirin alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lu leen mën a dal yàlla moo ñu ko tegoon yàlla yàlla mën na ko teggiwaat yàlla na fi yam nag kon bokk yi ñooña lañ nekkoon ba faatu fekk leen ca jullit yi bari tàmm nañ ko waaye nag bu ñu nekkee ci weeru bi nga xam ne ci lu julli wàccoon muy xew-xew bu rëy boo xam ne mus am te duutu am eh, julli moomu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu nit ki faatoo moom la yàlla di jëkk xool ci ay jëfam moo ne bokk yi ñooñu ñu faatoon fekk ñu ngi julli de war nañoo rafet njort ñoom ndax bàyyi nañ suñu liggéey ñëw di julli ba ca lañ faatoo doxe fa dugg dem dem dem am na ñuy wax kër gu mujj bar sax am na ñoo xam ne naan jébbal nañ seen borom seen kër gu mujj déedéet bàmmeel du kër gu mujj bàmmeel moo tudd bar gannaaw bar nag wa min waraihim barsaxun ila yawmi yubaasuun gannaaw barsax la yowmal qiyaama di taxaw kenn ku nekk ñu wan ko kër gi muy dëkk yal na doon kër ga ñu gënal te mooy kërug jullit yi muy aljanna julli moomu nag léeg-léeg nit ñi miin ko ba di ci fàtte yu bari yoo xam ne daf koy gàkkal gàkk gi moo tudd yi nga xam ne dañ ko ci sip mbokk yi lislaam dafa am juróomi néeg yu muy dugal lu muy àtte da koy dugal ci néeg yooyu xool ko ban ban la ci nekk am na lu ñuy wax euh, lu war loo xam ne farata la fardu ayn farata nekk ñaari xaaj fardu far fardu kifaaya fardu ayn mooy loo xam ne daal kenn mënu caa wuutu kenn julli bokk ci ak loo xam ne daa xaraam lii digle la loo xam ne dañ ko digle ab yool war ca bu rëy ci ku ko def te yàlla tax lee di tere goo xam ne ku ko def ab yar dal ko muy ñaari ponk yu mag digle ak tere mu am ci seen diggante loo xam ne bu la neexee def bu la neexee bañ a def muy lu dagan ak luñ sib moo ko ñeenteel ak loo xam ne dañ koo sopp lu ñu sopp am lu ñu wax ne mooy sunna sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa bu dee lu ñu sib nag dangay dégg ñu ne ah nangam dañ koo sib rek te moo ne ak tere la ku ko def dara mën na ko caa bañ a war waaye ku ko bàyyi am yool bu bari ah dañ koo sib rek te fekk dañ koo sib ni muy yàqee ak jaamu yàlla mi ngi mel ne acide boo wes ci mbub moo xam ne daa am couleur mbub mu mën a doon waaye mu am couleur moo ca raw moom bala ko bënn dafay soppi couleur ba ba noppi daf koy bën bën moo tax jëru ko jëru ko joo gis da koy jar sib nañ ko sib nañ ko rek bu ko defee ci lañuy ñuy fàttalante tuuti ginnaaw ci weeru julli lañ nekk am na ci yoo xam ne sëriñ bi junj ko ci benn téereem bu mu tuddee aljawharun nafis am na it yoo xam ne juru saa nekk waaye buñ ca junjee daal ne bokk na ci yi nga xam ne dañ koo sib ci ak julli te day wàññi yool bi nit ki waroon a am ci julli ba ba mu koy yàq da koy wàññi ba ba muy jax tàkk ndax am na sañsekat yoo xam ne bu ñu solee cuub gu baax bu ca asib toqee wala eau de javel dañ naan amul solo de waaye seen xol yaa ngay nox noxi di tàng jër rawatina nag bu melokaan ya tàmbale soppi ko waxuma laa di bënn nag far moom ñi xay dëgg-dëgg dutuñ ko sol dañ koy may keneen ñàkk te amul solo ja moo ko waral am na ci bokk yi ñoo xam ne bu ñuy julli du leen tee di foq seeni baaraam foq du leen di rabbale seeni baaraam di fudd sax xar di fudd ak a jato rawatina ñuy julli ci lu mel ne tarawix yi ñu def ci yenn jàkka yi nga xam ne naan daa yàgg léeg-léeg ñu fab seen benn tànk teg ko ci beneen bi di ko noppaloo walla euh, ñu taxawee benn tànk sax far taxawe teg ko ci benn tànk mooy tal togge benn bi mooy kolma doonte kolma fi mu gën a jekk mooy ko jaaxaan wala ku toog cib siis waaye ko taxawit man na ko loolu lépp bokk ci jox ci jox julli cër waaye am na ñoo xam ne du leen yàqal gestu geesu ndey joor ak càmmooñ ci lu ko jë lu ko jar lu ko jërut lu ko jar ak lu ko jërut kuñ dégg mi wax sax ñu geesu léeg-léeg ñu fortosu ko mu ne caabi ja ñu joxañ ko fenn euh, ci daara ji nga xam ne ci la Sénégal di jaamoo yàlla nag nee nañ geesu moom yàqu ko li feek tànk yaa nga jëm la waaye siib nañ ko nag mi ngi mel ne acide ci mbubb mu am couleur bi ko suñu mag bi tënk daal daf ne siib nañ lool ku tal togge ay tànkam mooy tegale ñaari tànkam walla sax mu taxawee benn tànk kolma euh, <coughs> bu yàggut waaye bu yàggee mën naa yàq julli ga bi gën bu yàggut moo tax ñuy wax waaye bu yàggee taxul ñuy wax moom wala muy julli def ci poosam lu xelam di nekk xaalis léeg nga gis ku sëgg defoon ci poosam xaalis mu wadd gaa yi di ko forle te fekk ñi ngi julli waaye da ciy duggaale itam def ci sa poos portable mu ne car nga bës ko te fekk yaa ngi julli moo tax jàkk yi bari léegi bind nañ ci kuy dugg ci jàkk ji na fay téléphone am wala mu noppiloo ko muy muy déy ndànk di xap-xapal ay gën xanaa bokk ngelaw li riddi te fekk ko ci bitti sañ na gëmmu ndax bañ a fattu walla boog lu loo xam ne gis ko daal ku ku julliwul ku ku néew ci julli gi sax gis ko baaxul mu di ko gis moom muy julli rawatu ca mu gëmm ba looloo jàll waaye gëmm boo xam ne amut leen wenn lay ci yiñ cible bokk mën naa yàq ak julli yàq nga mooy day da ciy indi ay taas taas ba far buñ ko xoolee du mel na mu war a mel te yonent bi nee na bu nit ki faatoo moom la ñuy jëkk xool euh, wax naa mu def ci poosam dara bu sonee mu ne ko naaj mu ne cell wala mu def ko ni yër ko ba xam numéro ban la ba xam ku jar wuyu léegi la wala déet Euh, walla boog mu bàyyi xel li ci ginnaawam lool ba léeg-léeg mu ne wëlbit bëgg koo xool walla mu teg ci ginnaawam ndab loo xam ne lu mu fonk ko ca nekk te janaa bi ne gàññ ci kër gi waaye lu ma ta bàyyi xel la walla rek lu nekk ci peggam rek lu koy jox yitte lu bokkut ak julli gi rek loolu lépp daa bokk ci yi nga xam ne day gàkkal ak julli yàlla nañu ci yàlla musal waaye bokk na ca it <clears throat> euh, ku ñuy nettali koo xam ne nett nettali gu dëng la te am na ñu koy def wax nañu ne am na kilifa gu doon julli kilifaam ne asalaamaaleykum xanaa fii kenn nekku fi mu ne aakay ah, maa ngi fi loola moom weesu na lu ñu sib benn wax na ci julli ga te moo ko ci jublu ñaareel ba daa wàññi ko bàyyi julli ga dem wuy ji ka ko doon woo koo ko ne ko ne ma nee naa da nga doon julli mu ne ko damaa xam ne li may amee ci woote gi nga may woo ak la nga may def loolu du ma ko amee ci julli gi kooku daa dañoo juum ki ñuy wax du ko waxe noonu ñi mi wuku bokk yi julli amul kenn ku ñu ci jox wàll wu muy sañ ak wum dut sañ dangay def walla nga bañ a def rek loolu tam lu mat a leeral la waaye da ciy bokk it di julli teg ci sa kanam ay photo photo ku mën a doon nag da nga ko war a toppale ba julli ba noppi am na fu mu xewe woon it dañ ne kooko toppal leen photo bii ndax day mel ne da ngay sujjóot ci kanamam ak ak siggi am ku koy toppale ñu ne ko kii ni mu toll ak jëfam nga di ko toppale mu dëpp ko kenn gisatu ko mu ne da bëgg a dëpp jëfam ñu ne kon nañ seete feneen fu ñu jullee ji waaye lii moom dañ ko tere moom te lii moom sa coobaree bopp la moo tax foto yi ñu def ci kanam fu ñuy jullee nañ ci bàyyi xel moo xam ni photo nit wala photo boo xam ne daal day wax dara te ñuy bàyyi xel wax ja kon daal mën na su tënk foofu xam ne julli po bokku ca mu néew mu bari jàmm jam di wokkutu ci lu dul saf wokkutu rek di gestu di jatu ndax taxawaay bi yàgg na di foq say waraam di ko ràbbale di fudd di teg sa loxo ci yenn barab yi nga xam ne ku julliwul sax waru ko faa teg muy fa muy tooge ak di geesu di wéeri wéeri ndeyjoor ak càmmooy kaw ak suuf ak bu nekkee ci mu néeg léeg-léeg mu yër ron lal gi ba xam li ciy yëngu lu mu yooyu yëpp gannaaw bu ëllëgee ci lañ ñuy xool suñuy mbir ba xam fu ñuy jëm luñ ne mënu caa ñàkk nañ fexe ba mat sëkk luñ ne dañ koo sopp sunna la nañu fexe ba mat sëkk waaye luñ ne dañ ko caa sib nañ fexe ba lu ñu man ñu moytu ko ba bañ koy tàmm ndax kat bokk yi ku dem du dellusiwaat te yi jot a wa yi jot a weesu rek ci lañuy sukkandiku di àtte moo tax am wérug yaram mën a taxaw mën a sëgg mën a siggi mën a sujjóot mën a jekki di sàggan ba ak tële dikk te munu ko nam ko war a mane mu ànd ak gàkk ak yàlla ñu ci yàlla musal loolu mooy koo xam ne yaakaar naa ne li muy def lépp baax na dem ëllëg ñu xool di ko xool julli ne ko sa waay lii moom loo ci jublu munta lay dara ñu delloo koy dossier su farata baaxut naafila munta baax ñun nag li mag ñi daan yedde bu jëkk gone gu leen la jël moo ñuy dal ci lu bari gone guy cëpp cëpp ci kanam mag ñi la jël leen wit dañ daan wax ne kii daal gone téel ma mag ñi ma duma téel ma gone yi ma duma mag ñi la du wax ki moroomam du foo ki bu dee song du moroomam waaye mag ñi nga xam ne ñoo ko mat lu nekk léegi la jël wit gone téel leen ma gone yi ma duma mag ñi la mooy bàyyi farata yi ak sunna yi ak mandubaat yeeg mustaxabaat yeeg fadaa'il yi dina ci sa bopp ba ñaqtoo xépp di yaakaar payoog yàlla yàlla amut googu pay am na lu ne de waaye diggewut loolu moom kon bu ñu nekkee ci weer wu ñuy fàttaliku ne julli ci la wàccoon ku mu fekk ngay dund war ngaa nafaraat sa diggante ak julli ba xam ma ngay dox wala doxul su dee dox nga xam ne ñëw nañ ci weer bi mu wàcce woon Eh, yàlla na ñu ko màng ci jàmm mu àgg ak jàmm te ñu fekk ko ay ati ati at te yàlla dimbala ñu ba déggloo ñu suñuy jaamu yàlla rawatina ci julli ak seeni bokk ay bokkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin